Sall ak PDS est-ce que kay tey yéen da ngeen a bokk ci boobu la dil ba ngeen wuy jiyee. man li ma gëm mooy wax naa ko sànq Khalifa Sall 2014 la nekk candidat pour nekk euh, beneen mandat ci mairie bi Macky Sall jël Mimi Touré teg ko ci kawam Grand Yoff ñu xeex ñu daan Mimi Touré 2017 ñu woo ko caisse d'avance maa suum yàgg na jeej maa ngi moom tribunal muy muy couvrir procès bi avant procès bi euh, fële euh, à non la à la BAG. brigade affaire générale mu ñëw di couvrir ñu tegal ay ay ay buntu ne ko kaay bu la kan daañu ak lii ak lii bu bañ. mu dem prison en prison fekk ko fa ne kaay négocier ba yaa ko yaa ba sa bopp soo négocier léegi mu ne négocier wu ma mu génn prison ñu topp ko kaay kaay kaay mu ne ñëwu ma kooku lu muy dil ku dil ma ñëw non non non ma ñëw non non ma ñëw ku dil waaw ma ne ku dil ku dil léegi yow dil ba mu Macky Sall moo ne woon. xam ngeen aussi il faut nga dellu yi ca ca ca buum a ngi wax loolu Macky Sall moo dem conseil des ministre ne demande naa au ministre Madior Fall mu xool les voies et moyens de réintégrer Karim Wade ak Khalifa Sall dans le jeu politique wax loolu. sans les citer. sans les citer. sans les citer Madior Fall pare ne pare naa jébbal naa ko président kon léegi kan mooy am problème ñun wala président moom mi waxoon nañ ma jox liggéey bi ñu la ko jox ko kay moo war def lu mu def. mais yow jàpp jàpp nga ni y' a pas de deal. non xam nga man dama lay yëgal. maa sonko sonko loolu la wax. non euh, xam Mimi Touré mi leen xam tamit moom la wax. xam nga sonko. dama dégg mu wax ne la jël effet pour m'isoler. man tax xam nga d' accord ma sonko les gens ils veulent l'isoler juridiquement mais pas par le dialogue judiciairement. Hmm. te xam nga dëgg moo neex yàlla. xam nga maa su am na sànq bu ñuy wax affaire économie xaw ma affaire secteur privé maa dafa ne dans un pays normal hmm. la maa si wax dama ko jàpp.

moo tax ma ne la mënuñ ko utiliser politiquement on peut on peut l'utiliser judiciairement te loolu du yoon ba réussir ak Khalifa Sall tamit mënuñu def même chose ba réussir ak Ousmane Sonko xam nga li am solo mooy aujourd'hui ñëpp conscient nañ ne li ñu defoon def ko Karim lañ bëgg def Ousmane donc ñëpp d'accord nañu loolu du yoon te ñëpp a ngi xeex loolu ànd ci ak Ousmane di xeex ak moom loolu te ñëpp ngi xeex ak moom jàppale ko ci loolu parce que jàpp nañu c'est injuste man dama ban appel moo gën a gaaw bi mais amul sens donc pour revenir à au fondamental Mansour mhm. Yewwi Askan bi mhm. dafa am nu muy doxee am nu mu tëddee mhm. boobu ba léegi mu ngi tëdd mu ngi dox te ba léegi Yewwi Askan Wi waxawu ci dialogue bi waxawu ci dialogue bi de ma jàpp ne bu taxawu ne maa ngi laaj sama ay ñooñ Ousmane Sonko ne man dew ma gàkku ne jeune ne gàkku ne man dew ma ça veut dire que ñoom xam nañu ne décision finale bi warul jóge ci Yewwi xëy na parti la ñuy invité li gën a xëy na li gën a sage mooy pourtant pourtant FN4 mi ngi joxe mi ngi ci joxe xalaatam de ba tax ngeen di dajale ci ngoon. FN4. FN4 lan la lu ko wutalee lu ko wutalee ak. waaw mais xamul ndax parce que non xam organisation la non xam nga FN4 xam euh, hmm. de dialogue wax na loolu. xam nga xam na woon loolu. Hmm. xam nga waxoon na loolu moom. Hmm. waxoon na loolu. Ousmane dire que même au sein de Pastef amagul bon xam man man parti laa gëm. d'accord personnellement ni man ñun taxawu Sénégal laay hmm. bu ñuy jël décision man maa ngi ko wax ci dialogue bi man taxawu Sénégal li idée kese la bu ñu def de référence hmm. jot a ak proposition dina def communiqué officiel wax li muy jël. kon looy tontu quotidien yi nga xam ne tey ñëpp xam nañu ni ñoom dañuy bind pour lu neex Macky Sall alors déjà ñu ngi annoncé sikkim euh, yi fasto ci biir Yewwi Askan Wi pourquoi pas ngeen def communiqué préciser leen recadré waat leen def ay précisions par rapport à ça. maa ngi koy wax fii am na ko mu wax ne leeral ma ne ko mais xamoo leeral télévision la mais surtout ces plateformes numériques c'est extraordinaire foo nekk si àdduna bi ñu déglu la gis la dégg la leeral naa rien à envoyer aux donc même fu ma waxee leer na yow yaa ne ñi ngi neexal Macky Sall man xam nga laa gëm maam lees mii digg dayoo àndul ak kenn yow maa su des fois nga sonnuñu songuñu bañ mere la des fois nga songu Macky Sall bañ mere yow mais loolu mooy dëgg bi laaj la wuti leeral mooy dëgg bi ay bisa nga ñëw yàggul dara moom mu demande invitation leeral loolu mooy dëgg bi man loolu laa gëm hmm. man li ma gëm mooy Birahima euh, man de personnellement man je di dis ici haut et fort wallahi azim Khalifa Sall bés bu defoon deal ak Macky Sall pour fekk Macky Sall ànd ak moom ma bàyyi ko man parce que man. donc le oui le oui n'est pas encore officiel. non c'est-à-dire c'est Taxawu Sénégal. qui hmm. va décider solennellement officiellement. man maa lancé ak Saliou Sarr consultation au niveau interne département yi ñu ngi liggéey ñu ngi yónnee diaspora mu ngi yónnee mouvement yi ñu ngi yónnee mais xanaa balaa ngay wax dialogue sa dialogue am amagul idée lañu wax kay ci Macky bu ko bu ko doon naa ci waxtuma dialogue ñu wax. waaw xam nga xëy na buntu la bu régler ko bu ko mën